jullit yi gannaaw bu ñu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonenteem ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yal noonu yàlla boole jëkkal tomb bu ñuy fàttalee dañu koy aj ci fàttali gu jibe woon ci kanam kilifa gi fan yi nu génn bi mu dajalee njaboot gi yépp am na lu mu waxal boppam am loo xam ne kayit wuñ jàng ci kanamam la waaye kayit wañ jàng nag ba mu noppee nattukaay yi ñuy natt lan mooy sunna nattukaay boobu mën nañ ko caa jëfandikoo mooy fekke na bañ koy wax waaye weddiwu ko bokk na ci këyit wañ jàng ci kanamam donte dégguñ ko ci làmmiñu sëriñ bi waaye jàng nañ ko ci kanamam mu ne cell dañuy jàpp ne ànd na ca bokk na ci këyit wa lañ ca jàng fàttali gu am solo moom la jëkke mooy kuy wéye ndigal ku ne ndigalam wala boo bëggee def dara nga laaj ko ndigal fu ñuy noddeti nodde na nga ni tekk bàyyi la nga doon def te bu nogg noddu gay daanu rek dugal ci jàkka ja jëla gën a jege loolu nag bokk yi day fàttali gu am solo goo xam ne ginnaaw woote na ba ñëpp dikk day mel ne kon génnewut kenn muy tomb bu am solo xel dana daj ba xam mbaadu ya ca des dañoo amul solo waaye bu ñu fonkee ponk bi ya ñuy tere day yomb day yomb a bàyyi ndax kenn duutu am ak jotam ndax diggante yi waxtu yu julli yi nekk ku jëfandikoo ndigal loolu ci koy wéye ndigal bu ñu nodd suba day fekk nga ne jonn taxaw waaj ba jekk lay jiitu jullik suba ak la cay topp digganteem ak tusbaar leneen xaju fi moo xam muy góor wala jigéen diggante tusbaar ak takkusaan it leneen xaju fi lu dul lu baax rek diggante takkusaan ak timis noona timis ak gee waxaale wuñ ko te yooyu ya ca lu ci nekk ak la ca war a topp ak la ko war a jiitu su ko jullit bi taxawee su jullee gee ba teg ca lam cay war a teg dana tal leneen lu dul di dox ci yeneen ndax wolof day léeb ne boroom gët yu neexu tal na lu ne ba mu des tëb ay kàmb moo tax tomb bu ama am solo la boo xam ne am na ayat yu ma jàng léegi bi ma jëkk jàng mooy suñu boroom daf ne bu leen fab ay caaxaan di ko wodde dëgg ba nga xam ne ku seen dëgg ga day defe ne ay caaxaan kese la wala talbisul xaq bil baatil waaye lu ngeen xam muy dëgg it ginnaaw leer na ci seen bopp na ngeen ko wax ak lu leen sa mën a fekk daa mel ni jiib na keroog ku def baax na ku defut jaan wàcc na waaye nag kii taxaw di sañu digle it yàlla daa wax ak moom atamuruna naasa bil birri wa tansawna anfusakum mbaa doone gaa yi dem leen rek déedéet danga naan kay lañu dem jiitu ñu topp ca bokk yi kër yu bare bari soo demee ak i pénc néew nag pénc wala kër goo fekkul jàkka la gën a gaaw ci nit ñi mën a tënku ci digal ndigal loolu nag mooy fu fi mën a fu fi nit mën a dëkk bu dee am péncam def na fa jàkka wala biir këram na ko jëkkee na def saa bu noddee lu mën a nekk mu génn moom jiitu nit ñu topp ci moom mu dugg ci jàkka ja bu dee jiite baax na bu jiitul kay jiite mu topp ci ginnaawam bu ñu sëlmalee sëlmal buñ ko dee def waxtu yëpp dana mujj nit ñi tàmm ko mu neex ci ñoom wa antum tatluna alkitaaba afala taaqiluun bis bu set nit jàng ci alquran aqimu salaata aqimu salaata aqimi salaata aqimu salaata ñëpp ko bokk waaye aqimi salaata kenn lay waxal kon kenn mucc ci waaye nag nee na waxtu julli jot rawatina tisbaar ak takkusaan nit ñogor ñogor yi dox na mën a doxee dugg ci jàkk ak a metti ci xol boo xam ne bii nangoogut wastainu bilsabri walsalaati wa innaha la kabiratun lu diis la illa ala alxaashiin ñim woyof toyis ñoom mooy koo xam ne kii ab xolam a ngay dund kooku moom fu mu dégg nag duutu am jàmm yal na nu ci yàlla boole illa ala alxaashiin mu mel ne dañ koo laaj ñooñu mooy ñan xaasia dëgg mooy kan mooy mu ne allazina yazunnuuna annahum mulaqu rabbihim mooy ñim wóor ne lu àdduna yàgg-yàgg danañ teew fi kanam seen boroom mu réglé leen loolu nag xol buy dund moo ko mën a teewlu saa su nekk saa su nekk muy teewal jëmmi boroomam ci kanamam bis bañ koy àtte ñi nga wax ne am na kilifa googu ab sëtam da ko doon tooñ naa ko yow kat foo jëm léegi day mel ne dangaa doon buur escorte bi mooy jiitu ña ca topp topp ca kilifa gën a leen loolu de li may fàttali mooy bis mooy bis buñ may ñu ne kilifa nga ko wax ñu ne la mu wax ne la mu wax ne mooy li mu koy fàttali mooy bis bu ñu ko yànnu di ko yóbbu ci armeel rek la xelam di dem kooku daa mel ni jamono yooyu mu xol baa ngi dund moom ndax gisatu dara lu dul la ca kanam yàlla nag waxaat na ci alxuraan ne jullit yépp am nañ liñ bëgg mooy taxe nañ dem nañ aljanna ba noppi jullit yëpp tàmbalee kekk mu daal di cay ràññale alladina hum fi salatihim xaashi'un ñi nga xam ne saa bu ñu noddee ñu ne tekk bu nodd ga daanoo ñu lagg bàyyi lañ doon def lépp waaye loolu bàyyiwul góor ak jigéen ndax boo demee ci alquran it da nga ca fekk suratul ahzab mu doon wax ak soxna yonent bi alayhi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum wala an anhun gaa yi duñ jéggale dara ay soxnaam radiyallahu anhun wa qarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati alula wa aqimna alsalata wa atina alzakata wa atina allaha wa rasula mooy dee leen toog seen biir kër yi ndigalul suñu boroom loolu jigéen ju ko dégg kenn du la joxañ ndax di su la gis ba di la joxañ su ngeen toogee seen kër su génn mënta ñàkk bu leen waaj door a génn te ci jigéeni réew mi néew na si ñuy waaj ba jekk toog dana ci gis koy waaj sax doomam naa ko foo jëm jàpp ne waajtaay mook dem ñoo war a ànd déedéet mu ñaareelu ndigal ci jum ci jigéen ñi leen toog seen kër te bu génn mënta ñàkk bu ngeen dee génn na yam rek seen waajtaay moom na yam ca biir kër ga waaye bu ko mbedd mi xam te it aqim na salaata saa bu ngeen mënee julli bu leen ko góor ñi yóbbul bu ngeen dee liggéey it bu génne asaka jotee bu leen ko góor ñi yóbbul yéen a góor ñi yem képp ci analu yàlla wax ak lu yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam kon loolu dara du lu bees fàttali la rek fàttali la waaye nag alquran moo gën a xam nit ñi ñëpp ndax kiy wax ak nit ñi ci alquran moo gën moo bind nit ñi nee na nit ñi saa booy wax naan yàlla nee na nee na nee na nee na day mujj nga fotonqal leen fotonq mooy day mujj dutuñ ko jàpp waaye dañ lay jéppi far boole ci waaye saa boo tàmbalee wax leneen wala ci keneen wala ci leneen dañuy bëgg nga gis sax far ñuy jooy léeg-léeg ndax mbëgte mu ëpp waaye tiitaange jooylootul ñu bari ida dukira allahu waxdahu isma'azzat qulubu allazina la yuminuuna bil axira allazina la yuminuuna bil axira moom mën naa doon ab jullit mooy koo xam ne rafet na njort ci ne lépp dana baax te defut dara defut dara mi ngi mel ne ku toog ci këram xëyut joxe dara ba noppi gëm ne lam bëgg a aña lay aña buñ ko ko yekkalut day mën naa bañ a añ te léeg-léeg yàq ab aw des rek lay doon ñooñu dañuy dem ba soxlaatuñ ko te loolu ku yor deretu gor war na ko bañ di dund ay yàq kese waaye wa ida dukira alladina min dunihi ida hum yastabshiruun dañuy bëgg lool léeg-léeg sax mu jox mu jaral leen joxe alal waaye suñu borom bi mu digalee laa yu suñu borom wax ju nekk pay ga ma ngi ca pegg ba ci ñàkk ko def daram du neen dara amul leen lu mu defar loo xam ne da nga ci xool doo ci gis dara saa bu teree ak paye ma ngi ca pegg ba mooy mbugal mu metti ma ñi jàngale nu ñuy làggale nit dañ naan am na foofu boo fa dóoree nit ki bu ko fa loxo dalee wala tànk day daanu rek yam ca mën naa jugaat waaye am na foofu bu ko fa dalee dana na nemm ab diir waaye am na foofu bu ko fa dalee dana dana tekk ab di duutu xàmmee kenn faw ñu ximmili ko waaye dana xam am na foo xam ne moom duutu jóg moom fa lay doxee faa bokk yi nag loolu ginnaaw nit a am moom a pexe waxaante ko ñu suñu borom mu tere kenn ku nekk ak la muy tere bu ko defee rek am na ab yaram boo xam ne bu ko dalee dana xam dañ xam ne dal na ko am na jàngalekat bu nekkoon Tuuba ci kilifa yi la bokk su masaan di xupp nit ci ak ñàkkat mokkalam wala ak ñàkkatareem wala mu def leneen loo xam ne wantal ko laaj na ko ki muy wantal mooy di teg ay bant ci kaw ci kaw aw yaramam ab yar xalaatu yar yi mu koy teg waaye yar ba muy xalaat mooy yarub tàggoo ba su ko wantalee ba ne ko wax demal bàyyi naa la su ko dabaatalee rek bootu dana àgg suuf xalangu lu yàgg door a jóg kooku nag suñu borom wax gën a tàng loxo fuuf moo tax mu ne ku yàlla jox ubbil buntu xéewal booy jar ba mucc ëllëg booy jar ba defaru ba mën a defare soo ko wanee gannaaw yàlla du la bàyyi nga dem noonu def naan la nuus ëllëg ndax buntu boobee ubbi mu ubbi woon bari nañu ci waroon a jaar mu bàyyi la ko fa réserver la ko mu jóg mu jóg ko jël xamees na ne fi mu ne nii ku jënd billet war a tukki ba bis ba jege si mu woote ne mënta sa dem palaasam boobee mu fa bàyyi woon da nga def nañ ko bàyyi mu dem dañ naan ko da ngay fay nangam ndax dañ ko fa bàyyi woon ngir yow wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma jaa'atu fa inna allaha shadidul iqaab moo tax biñ fàttalee julli moom day tomb mat a taxaw boo xam ne jar na waxtaane ay fani fani fani fan rawatina nag woo ba ñëpp di kenn di sut ñu tudd tur ya ñëwoon yëpp mooy ñi nga xam ak ñi nga xamutoon ñëpp kere tudd nañ seen tur ñu ci bari kon bu kenn dem ne moom taxutoon muy wax moom ñëpp la waxal julli mooy kan julli mooy chamatal xurubaat chama bu ñu ko waxee ci jëmmi nit ki mooy loo xam ne ku seen nit ki seenaale ko ay gët ku seen nit moo xam gët yaa ngay xool wala xool waaye da nga seen ay gëtam moom ak bakkanam ak gémmiñam loolu moom ku gis nit da nga ko gisaale kon julli ci ab jullit mooy chamatul xurubaat mboolem yi ñuy wur yi ñuy wër di ci jege di jéem a jege-jege suñu borom julli mooy seen kilifa ñoom ñëpp waxtaane nañ ko lu bari fàttalante ci mooy benn ponk bi nga xam ne bi ko yàlla di jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko wool boppam yónnee wut ci moom kam yónni woon sax fekke wu da ko ne taxawal foofu ma wax ma gisee kii waaye suñ ko dee misaal ci jëmmi nit ngir nit xam ko day mel ne bopp ci nit bopp boo ko déggee mooy bi ëpp cër bi ëpp ay yëf-yëfaan bopp bopp luy dund lu nekk ca la yóor ga nekk ca la nopp ya ne ca la gët ya nekk ca la gémmiñ ga nekk ca la bakkan nekk bakkan mooy kan mooy kiy xàmmee ay xet léeg-léeg mu fóon dara dara bakkanam bëggul mu xeeñ ko léeg-léeg mu dara fóon dara delloowaat ko ca bëgg mu di ko xeeñ waaye gémmiñ mooy kan ak làmmiñ làmmiñ mooy ràññale cafkay yi ak i tuñ yooyu yépp ci bopp la nekk nit mën naa ñàkk benn ci yooyu nekk ci bopp bi te du tee muy dund mën nañ naa mën naa am gàllankoor ci nopp yi wala ci gët yi wala ci gémmiñ gi waaye bopp bi tàggoo na ak yaram wi moom tur wa soppi ko am néew lay tudd moo tax julli ci diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dafa mel ni bopp ci jëmm juy dund ju nekk luy dem ak a dikk nit ak yi ci des ñiy tëkku nit sax ci di leen ragalloo faatu dañ naan boo defee nangam ak nangam danaa tàggale sa bopp ak sa baat kon mooy dama lay rey ku nekk xam na ni bopp moom ku ko tàggale jëmm ja nekkatul jëmm tuddatul jëmm ja am néew la tudd léegi moom la ñuy ràññee it kii na ci lislaam ak ci nekkut kii na ci lislaam ak ci nekkut moom la ñu koy ràññee moo koy xàjjale mooy fajwa bi dox seen diggante fajwa boo ko déggee mooy diggante ñaari ñaari tabax waxum fi faja fi fajwatin minhu dalika min ayatillah fajwa mooy diggante ñaari étage yoo xam ne seen diggante fukki mètre ak juróom-ñaar lay tollool jëm ñaar fukki mètre étage taax mu ci nekk doon fukki étage nga xam ne tëbe fii dem fee boo koy xool day mel ne lu yomb lool te pax mi ne ci seen diggante xóot lool diggante iman ak kufr nag julli moo ne ci seen diggante waaye sëriñ bi nag fàttali na li mu war a fàttali kon day mel ni jëmm ju amut bopp du dund moo tax julli di ponk bu am solo ci diine gannaaw sëñ bi tudd na ko faw mi tudd ko moo tax duñu wax ku bañ a julli waaye ku wayefal julli moo ñu tax moo ñu tax di wax ku wayefal julli moom Cerno Birahim ba ko sëñ bu mag bi ne moytu leen néegi jigéen ñi dañ ko ne moo ne moom bi ci néeg ndeyam lay dem mu ne moo tax may wax néeg ndeyam kuy tere néeg néeg ndeyam ka ca des taxut néeg yi ci des taxut ñuy wax moom moomu di sëñ bu mag bi nee na ku bàyyi lam doon def dem julli ji bu mu jàpp ne lam doon def dana ko rëcc business ba mu nekkoon dana ko rëcc déedéet yàlla dafa koy téyeel ba mu julli ba noppi mu jox ko ca lu ëpp lam ci doon yaakaar waaye ku bàyyi julli dem def dem defe leneen julli raw na ko loolee du ca am dara man shaghalatu duni man shaghalatu salaatu an il ashyaa intafaa biha biha mooy julli wa bil ashyaa waaye ku bàyyi lam doon def dem julli ji moom lam doon def bu mu jàpp ne da koy raw yàlla da ko koy téyel ba mu julli ba sëlmal mu dem fekk nu gën lam ca bëggoon a def moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na Bilal ba tàyyi ne ko Bilal jógal noddu nit ñi ñëw loolu mooy saa bu tàmbalee xalaat xalaat yi àdduna rek nga xam ne ak nit dafa nekk danaan Bilal noddu jotagu te mu ne akay mu ne ko noddal ndax wóor na ko ne bu ñu xasee ba tàmbalee noddu xel mi day génn fii fépp dem fële fa sunu borom subhanahu wa taala te loolu mooy faj ak ruux lam doon wéré di wéré di it ci wéré dem gu mujj googu sallallahu alayhi wa sallam fuñ masaane allahu akbar allahu akbar yàlla salaa yàlla salaa bëreet ja moom ñi ñi koy ragal dañuy am yaakaar defe ne wér na waaye da ko mënta muñ day defe ne moo fa war jëkk te moo ne boobu mën a tut sallallahu alayhi wa sallam sëñ ma bañ njaay wax na ne sëñ bu mag bi firi na aayaat yooyu ak xikma boobu mu génne nee na ba ñuy sanc Mbakke Bari Mbakke Bari mi ngi ab dëkk mi ngi ab dëkk bu am ba léegi si ba ñu koy sanc dañu faa jiitu sëriñ bi mu ñëw fekk ñu takk ay néeg ba àggal mu ne néeg bee nag ñu ne ko nangam a ko tax a jóg bee nag nangam bee nangam bee nangam ba àggal mu ne waaw ana jàkka ja ñu ne ko ah dañ doon nekk ndigal de mu ne dindi leen néeg yi ngeen jot a takk tàggal leen ko ak seeni yañ àndal yëpp ba mu doon ñax kese ak laat kese ak xànc kese lu ne tege fa mu tege woon ñu def ko mu ne acca taxawal leen jàkka ja ba noppi ñu taxawal jàkka ja mu ne waaw kay su leen neexee ngeen taxawal ay néeg su leen neexee ngeen bàyyi ndax am na ñuy dund te dëkkuñ ci ay néeg daan na leen lu ngeen mën a defati bu julli ñëwee na ngeen ko bàyyi dem ca daan leen daan leen di nettali luy firndeel ne man shagalatu salaatu an il ashyaa intafaa biha wa bil ashyaa ku fa ne ñukk la nga doon def dem julli ji yàlla dana la jàppal la nga doon wuti te xamoo lu mu doon foo ko doon jële mu ne sëriñ bi na leen nit a ngi nii koo xam ne wenn warax la amoon warax mooy mbaam ci la daan sëf ñu di ko fay miinoon kër gi lool bu mosaan jofi bu jant bi lang rek mu ñëwal boppam ci kër gi bi jant bi lang gisut rax wa soxna si ne ko daa mel ne reer day amu fi tey war a xam dem na reer amagu fi tegoon na yaa ngi jooyoo waaye mu dégg ak noddu mu ne fa ñukk yaari yitte yooyu reer ba amagut ak warax wa réer te ñëwagul mu war koo wëri ba mu jullee ba sëlmal nam daan jullee ba warax wa nekk ci kër gi ak xel mu dal ba mu sëlmalee rek la ndogment bukki walla gaynde di dàq warax wa warax wa daw ba ne salaax ci kër gi kon daa mel ne ndogment da ko doon indil waaj ba mu ne saraax mu wàññiku ndax ci kër la dugg mooy daa mel ne warax wa ñëw na de ji yitte de faju na ka ko doon soññi soññi ko mu ne ko nañ jàpp ci yàlla rek si tuut ay jëgg nii woto yi di sëfe ay conteneur di dem dëkk ak dëkk noonu la aw nit daan sëfe ci ay gëléem di dem dëkk ak dëkk di yóbbu nit ñi seeni yëf ay jëgg jaar fa bay bëgg a romb daan ne lii de ab kër lay niroon Sëriñ Tuubaa mooy wax ñu ne ah kay kër la de ñu ne kër la de ñu daal di fay nuyoo mu fay leen ñu ne ko dañoo guddee bëgg fu ñu fanaan mu ne ay ca waaye reer de amu fi ñu ne ko loolu jafe-jafe daal di togg reer toggaaleel ko moo ko waa këram ba ñuy dem ñu bàyyil ko fa lu doy sëkk dund bu yàgga yàgga yàgg aajoom faju na ci ñaari anam lam yaakaaroon ba war koo wëri muy war a xam wa ndong ment andil na ko ko waaye reer boobee mu amutoon ni reer boobee bàyyi gam ko fa bàyyi dem julli ji xëccal na ko yeneeni reer yu gën sax yam doon reeree dem su ko defee kon soññee boobu bu kenn jàpp ne bokku ci dañoo lim ay tur tudd seeni tur ak seeni sant ñoom ñëpp ne diw teew na diw teew na diw teew na daal di wax te sëñ bi newut boolewuma ci diw ñoom foofu nag bokk yi fa mat di taxaw la layoo na ba noppi moom layoo na de nañ gën a fonk jàkka yi ak jumaa yi sëñ bu mag bi it rëdd na loolu ki ma ko jële ci moom ki mu ko jële da koo fekke aw rëdd wu jub xocc ne kenn ku nekk na xool ba xam rëdd fu mu fu mu dënge ñii nag ñu def kilifa léegi lu mu wax ñu ne ko noonu la Sëriñ Tuubaa dundoon loolu wax na ba tey ñu teg ci baat wax na ba tey ñu teg ci baat waaye lam doonoon nag mooy ab jàngalekat jàngalekat faw ñi may jàngal naa ko nakamu ak kayfa ak ayna ñu ne ko jub xocc la def de foo ko mën a xoole da daa jub mu ne jullee nga noonu ci ak jaam ci ci ci pas-pas jullit bi su fonkee julli di ko def nam ko war a defe nam ko mën a defe ba ba mu koy defee nam ko mën a defe su ko dee defee nam ko mën a defe ba ba mu koy mën a defe nam ko war a defe ba ak julleem jub xocc su yomal xiyaamaa lu dëngoon ci moom julli dana ko jubal waaye nag ñàkk gaa fonk moom musiba la ndax lum mënoon a jàpp defe ne ci jub la nekk bu ñu xoolee julli jubutoon loolee ñàkk jubug julli ga moo koy dëngal ba mu doon lu dëng mu jub mu jub safaan yàlla mu ci yàlla mu sow moo tax atamuruna naasa bil birri wa tansawna anfusakum mbaaru da ngeen naan gaa yi dem leen ma fekk leen fa wala dem leen ne leen déedéet ku ci jàkk nekk ci bintu këram wala ci biir këram bu muy rocc ko di julli wala muy yable yable baax na lool waaye ku dem boppam la demal ku ci jàkk nekkati ci biir këram wala ci mpéncam na jëkk jëfe ndigal li ci moom lu mu mën a jàpp bu julli jotee na ko bàyyi dem ci pénc ma wuti jàkka ja ndax buy jóg nit ñi di ko topp am na ñoo xam ne seenu ñàkk dem jàkka ja gisuma diw di fa dem donc moo leen tey dem kon loolu ab layoo lay doon ëllëg itam yal na nu ci yàlla musal moo tax day metti lool léeg-léeg ci xolub kuy dund wala pas-pasu kuy dund ñuy julli ka julliwut moo xam lu ko tee julli kenn ku nekk moo xam matt yi nekk ci ab lalam waaye nag bokk yi nañuy may nañuy may war ma tuuti ñuy julli moo xam muy daaira boo xam ne dañoo am tuur rajo yi sàkk luñ ko waxtu wuñ koy war a wàññi doonte dañuy julli sax am na ñoo xam dañ koy fanaane ba bët set wicc ña daan déglu ay noddu ci jàkka yi sax duñ déglu duñ déglu duñ dégg noddu ya am na ñoo xam ne ci wetu hôpital yi la ñuy nekk nit ñi bëgg a tuskare ak metit ñu ubbi rajo yi ba mu sës di wut lu baax nag ba far ëppal def ko ni Demba Waar Njaay ma doon bay topp waar wa mu neex ba far daanu ci géej ga ab juti war na ko moytu te dëkkandoo daa foor lool kenn xamut ñaata tuur moo am ak ñaata guddi yoo xam ne ñi koy def lu baax dong lañ cey wut waaye léeg-léeg mu ëpp ndax fexe ba ñuy déglu ay nodd di ci xam waxtu dégluwuñ noddu ga te néewuñ ay ca leen doguñu la ñuy def ba julli ba noppi it nekkatuñ ci déglu sëriñ moom ne leen wóor ne ku ci nekkati ci ab tuur wala ak màggalit topp njàngam ba fajar jot ba yiwu ko dem julli ci nekkatu ci ndigalul sëriñ bi na fi bàyyi sëriñ bi xasidaam te wuti yeneen xasida yi muy jàng moom ba faat ca waxtu julli yàlla na ci yàlla musal bokk yi bis penc daa yàgg ña nga tàmbalee xam dara nga xam ne duñ ñëwaat mënuñoo wax te ñépp réccu suñ bu mag bi nee na wa arghabul ashyaai lil amwaati raddun ila dunya maa alxayaati walaw suwayatan faqat li yaamalu saalihatan tanfauhum in gafalu mooy ñi faatu ñëpp ñëpp am waat moom génnewu ci kenn koo yaakaar ne moo tax ñuy wax taxul ñuy wax moo tax ñuy wax al am waat nee na li ñu gën a bëgg ñoom ñoom ñëpp mooy dellu si waat àdduna ndax ku faatu amatut lu muy mën a def lu koy jariñ dara xanaa li ñu fi bàyyi woon ak lu ñu koy mandat di ko yónnee yàlla na fi bàyyi ñoo xam ne nag tàmmal na leen lu baax ba mu ñaane yàlla nangu nee na ñëpp koo ci laajoon tey loo gën a bëgg dellu si àdduna kese ak lu mu gàtt gàtt ñu mën fay def lu baax delluwaat ñey de ci ñaar lañ kenn ki xool na xool xam ne mbiram nar ta jag ndax ñam doon yaakaar ñëpp ak ñam doon dégg seeni tur ñëpp xam na ne ña nga fa waaye xamut ku mu koy laaj te mën naa ko ci gis mën ngaa lijjanti mën naa lijjantiku loolu misaalum àdduna la demaguma fa bay xam na muy demee waaye misaalum àdduna la léeg-léeg ngay dem ci am réew xam nga ne diw fa la ne waaye doo xam koo ko laaj waaye wóor na la mi ngi ci réew saa su ne nga laaj diw ana diw mën la yii kooku ba ma ñëwee ci réew mi la gisanteeguñ xamoo ci lu mu nekk kooku la muy rëccu ku ne xam na ko mbiram nar ta jag te kanam la jëm dunduk àllaaxira kanam la jëm waaye ki nga xam ne li ki nga xam ne moom mooy keneen ki mooy li muy rëcc mooy lu teewoon mu gën a def lu ëpp la mu doon def ci lu baax ndax moom it tàmbali naa gis njariñam su ko defee xamul kañ la fay jóge te wóor na ko ni lii bu jeexee moom xamul nu muy defati foo xamul kañ nga fay jóge yóbbaale fa ab yóbbal lu mu bari bari bari mëtt yéem yàlla na yàlla defal digg ak topp te musuñu seytaane ak pakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina